Ndiaye Camara nekk président de du collectif des slameurs de la région de Thiès. waaw collectif euh, slameur bi nga xam ne mu ngi exister à Thiès mu ngi am depuis 2009 ñu nekk ci nekk ay slameurs nekk ay poètes ay écrivains en général yoo xam ne ñu ngi ci œuvre depuis bi mu juddoo ba léegi di def ay ateliers d'écriture au niveau des écoles ci quartiers yi di. initier les élèves à l'écriture di initier les élèves à la lecture parce que suñ dañoo constater que ni euh, la jeunesse liiratuñu te li tax liiratuñu euh, dafa bëri ay kii yoo xam ne moom moo koy moom moo koy def mais dañu juger ni l'islam dafa nekk mouvement boo xam ne dafa juddu ànd ak jamono te jeunes yi bëgg nañ ko léegi nag ñun ñu jaar foofu noonu pour inciter les jeunes à aller vers la lecture vers la littérature depuis 2009 nag ñu ngi def ay activités au niveau de Thiès voyagé nañu un peu partout dans les régions yi nga xam ne ñu ngi au niveau du Sénégal di dem ci ay festival di dem ci ay activités ba tey ñu toog gis ni la demande et les fortes et mouvement la boo xam ne mu ngi juddu mu ngi dox fépp ci àdduna bi ñu ne pourquoi pas ñun ñu utiliser ce moyen la pour amener les élèves vers la recherche de la connaissance mm. loolu yóbbu ñu ba ñu ne léegi dañ fi indi suñuy naataangoo yoo xam ne ñu ngi au niveau du Sénégal mais également ñu xam ne ñu ngi au niveau de la sous-région indi leen fii pendant une semaine euh, pour benn festival. Mhm. donc ñu tuddee ko festival de slam et poésie de Thiès donc muy am euh, du 24 novembre au 1er décembre huit jours yoo xam ne avec des activités yu bari yoo xam ne un panel d'activités dina répondre ci li nga xam ne moom la festival bi laaj. Mhm. mu nekk festival boo xam ne également c'est à envergure régional parce que yemale wuñ ko rek ci ville de Thiès yemale wuñ ko rek ci département de Thiès mais dañuy dem ci yeneen département yi nga xam ni ñu ngi au niveau de la région fexe ba ñëpp découvrir l'islam fexe ba jeunes yëpp également am possibilité jàng ni ñuy bindee am possibilité dem gëstu ji am amuuru lecture ak littérature. Mhm. dina am euh, village euh, festival bi ñu ngi koy defee fële ci fi nga xam ne mooy SEDEPS bi. Mhm. fa lañ bëgg a defee village festival bi. mais day am mhm. ay activités un peu partout dans les départements parce que war nañ dem euh, ndaayaan war nañ dem Taïba Ndiaye war nañ dem Tivaouane war nañ dem Ngaye mexe ak yeneen yeneen yeneen dëkkuwaay yoo xam ne ñu ngi ci biir région bi. pour rek yóbbu fa slam bi. parce que foofu yëpp am nañ fa ay représentants yoo xam ne dañu bokk ci mouvement bi mais également mu nekk ay jeunes yoo xam ne dañ leen a bëgg a pousser à ce que ñu jaar ci loolu moo tax festival bi village bi ñu ngi koy defee comme ni ma ko waxee léegi CEDEPS bu Thiès mais dina am ay activités un peu partout au niveau de la promenade ak yeneen lieux. waaw organisation bi nag wax dëgg fa yàlla euh, loolu mooy suñu problème parce duñ ko nëbb dem nañ fépp ci Sénégal wax naa ko sànq mais à chaque fois bu ñu demee ñoom seen i autorité dañuy jug taxaw jàpp ci day dem sax ba daanaka autorités yi ñooy def festival yi mais ñun à Thiès vraiment bu ñu buggee wax dëgg amul benn autorité boo xam ne jàpp na ci jusqu'à présent fiñ lay waxee nii li ñuy dem ñu ngi dem ak suñu fit ak suñu jom ak suñu fulla mais ba léegi autorités yi jàpp ñu jàpp te du faute que ni déposé wuñu des des demandes pour ça ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne yëgul activité bi ñoom ñëpp jox nañ leen ay lettres ñeenti maire yëpp ak conseil départemental ak yeneen autorité sax yoo xam ne ñu ngi fi jot nañu lettres yi ay chambre de commerce ak yooyu yëpp jot nañ lettres yi mais amuñu réponse et li ci gën a garaaw sax mooy que ni conseil départemental parce que ñun dañoo toog ba ci comme jotuñu réponse boobu ba léegi ñu ne nañu dem ci ñoom xool lan lañ ñuy wax euh, bi ñu demee conseil départemental euh, bi ñu demee fa la ñu ñenn ñi nekk onze heures ba une heure le vendredi bële toog di xaar pour gis kan la ñu war a laaj biñ ñu waxee ñu suñu dossier dañ ko imputer le président du conseil départemental ak le secrétaire général on a demandé à voir le général ñu dem toog bureau secrétaire bi nañu xaar leen mais fi ñu toog di xaar am na ku nekk ci bureau am ndekete day waxtaan bi mu génnee moom ci boppam moo ne secrétaire bi mënoon nga leen a annoncé parce que man dama doon waxtaan rek bi mu paree une heure jot na mu ne moom day julli ji ñu ne ko ñun dañuy julli ji mais yow lañ doon xaar ñu sax recevoir ci bureau ci buntu bureau bi la ma recevoir ma génne document bi expliqué ko xoolu ko sax mais daf nañu carrément ñun am nañ yeneen yeneen priorité que di def ay subvention parce que suñuy salaire fayaguñu ko am nañ yeneen priorité lu dul def ay subvention loolu lañ tontu catégoriquement moom euh, mën nañ ne sax au niveau de la mairie ville de Thiès ñoom accepté nañu parce que ñoom dañuy def seen festival ñoom tamit accepté nañ seen festival parrainé labellisé festival bii nii mais malheureusement ba léegi ñu ngi toog di déglu. Mm-hmm. di xaar ñoom it dig nañ ñu. bon dig nañ ñu. Mm-hmm. Euh, yaakaar nañ ni ñoom dinañ def réaction mais ñu ngi toog di xaar à part ça yeneen maire yi fu nekk daw nañu ci ginnaaw topp wër nañ. fu nekk mais pour le moment amuñu ci lenn lu leer. amuñ ci lenn lu leer franchement ñenn ñi ñu ngi ñuy xaarloo ñu ngi toog di xaar di déglu mais problème bi mooy xaar bi dafa dafa dafa dafa metti parce que à une journée de l'activité ba léegi amoo dara lu la leer te ñoom ñi nga xam ne ñu ngi war a ñëw pare nañu pour ñëw préparé wu nañu chaque jour ñu ngi ñuy woo di ñu di ñu di ñu sonj ci mbir mi te ñun fi mu nekk nii pour le moment dara sotteegul lu dul ay nit yoo xam ne du ñu ay autorité ñoo jël. tuuti seen alal pour jàppale ñu te ñoom sax dañ leen a yéex a dañ leen yéex a sollicité parce que ñun dañoo compté woon ci autorités yi parce que comme c'est une compétence transférée la culture te dafa nekk activité boo xam ne dafa transversale nekkul culture rek dafa nekk culture éducation et jeunesse donc ñetti yooyu yëpp la laal mais problème bi mooy malheureusement nous sommes xaw ma mal compris peut-être par les autorités wala ñoom jeunesse bi Euh, daf leen a soxalul peut-être moo tax walla culture également ak éducation soxalu leen moo tax mais franchement ñun comprendre luñ ba léegi on n'arrive pas à comprendre li nga xam ne moom mooy am et am na nit koo xam ne moom moo ñu jox lieu boo xam ne war nañ fa héberger nit ñi loolu taxaw na ba pare mais pour le moment sur le côté financier pour réellement activité bi am vraiment euh, Doudou Lam la tur bi euh, membre du Wassalaam Thiès euh, artiste rappeur animateur rajo et aussi chargé de relations extérieures li nga xam te ne mooy collectif bi nga xam te ne moo regroupé les slameurs de la région de Thiès comme Mandiaye ni mu ko waxee rek on a eu à faire de démarche démarches yi nga xam te ne ñun jàppoon nañ ni mënul ñàkk donte dañoo nekk ci dëkk bu nga xamante ni dafa am ay normes dafa am aussi tamit li nga xamante ni mooy mooy waruwaay wàccuwaay ñoo xam te mooy autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te aussi jot nañoo def sorte yu bari te y'a aussi aussi beaucoup de de manquements yi nga xam te ni depuis lors ko doon muñ daal di jël suñu xaalis di si def mais tamit si tu travailles pour une région donnée am na liggéey boo xam ni mënoo ko def mooy liggéey autorité yi nekk dem nañ fi waroon nañ fi dem représenter la région de Thiès pour la finale nationale de slam foofu gisuñu commune gisuñu mairie bi mais dañ ne noonu nañ dem ñu dem ñu génn fi dem ba podoor même chose te boo demee foofu li lay gën a li lay gën a metti mooy li nga gis seen autorités yi ñoom ni ñu jegee seen population yi te loolu li gën a doy mooy da ngay dem sax si lieu duñ la recevoir si bureau des fois yow li lay metti mooy tu sais que la personne bi nga xam te moom ngay demander audience yow yaa ko ëpp taxawaay bu nekkee xam la yaa ko ëpp bu nekkee jàng yaa ko gën a jàng et loolu moo gën ñoom dafa mel ni dañuy fàtte ni ñun population bi ñoo leen fa teg ñun la ñuy liggéeyal te loolu man je tenais à le lu tax ma koy déplorer parce que li leer ba leer mooy am na leen dafa am du xam-xam du li jaasa du mën-mën aussi tamit du du ambition ëpp ñun ci leen coow li loolu la loolu boo seete tamit lu tax ñu daw seen ginnaaw leen rek la on veut pour une région dañu bëgg defal pour benn région liggéey bi ñuy def nii ñoom seen liggéey la waroon doon liggéey bi ñu def ñoom seen liggéey la war a doon te tamit na loo xam te il faut tam ñu wax ko ñu dissocier li nga xamante ne mooy sport bi culture bi dañ ne association socio sportive et lu moo tax lu lu bëri li nga xamante ne ay subvention la day dem ci sport bi kese na moo tax loolu te aussi dañ ci dëkk boo xamante ni culture ba daan xam dee na fa mooy Thiès de te li ko rey mooy suñ njiit yi nga xamante ne ñoo fi nekk li ko rey mooy suñu njiit nga xam ne moo fi nekk da ngay jóg sax ne artiste nga bëgg a doon seen waa kër dootoo jubóoteeg ñoom lan moo ko waral des fois dañ ne ah li ñu kaas dafa bëri nangam nangam te li ñu li ñuy fàtte mooy li sport intellectuel la sport intellectuel la ñoom ñëwoon jël seen doom yi ñoom ñoo war a ñëw taxaw te ubbi la marche di saluer aussi tamit dëkk yi nga xam te ne yu mel ni ba parce que dem nañ fa à plusieurs reprises fa ay atelier d'écriture mais liggéey ngay njëkk a remarqué mooy c'est le maire ki se déplace avec ses adjoints c'est les c'est le censeur le proviseur de bi nekk ci lycée bi ñoom ñëppay déplacé wu ñëw def atelier d'écriture beeg yow Thiès la moo tax mënul am loolu ñu am plus de quatre maires quatre maires et quelques boo demee fekk fa plus de quatre adjoints yu nekk fa premier adjoint deuxième adjoint troisième adjoint nga ñëw ñu ne la maire bi new fii recevoir leen maire bi déggul français yooyu fii Thiès ak la am te loolu dafa war a jeex loolu war na jeex c'était des cris de cœur nag c'était des cris de cœur yi nga xam te ne on voulait le lancer on voulait le lancer di saluer ñu mel ni comme Thiam ñu mel ni comme Thiam nit ñoo ñu baax nañu ñooñu baax nañ ku mel ni Babacar Fall ñooñu nit ñu baax lañu dañu dégg affaire bi xaaruñu sax ñu ñëw wax dañoo ñëw ne ah lii nañ ko ci ñun nag dañ te suñ këtalaay kàttan festival bi que autorité yi ñëw que ñu ñàkk ñëw dinañ ko def incha allah parce que yéene la yéene la on doit bien ça à cette population bi nga xam te ne mooy la population de Thiès waa de li nga xam ne mooy formation société bi lépp ñun li mu li mu li ñu waroon nag moom def na ko si ñun léegi na ñun loolu dañ koy delloo su ñu koy wax autorité yi bu ñu ñëwee dañuy def festival bi buñ ñëwul dañuy def festival bi te bu jaree conférence de presse aussi tamit dinañ ko def ñu dénoncer parce que tamit de lii doy te du yoon te Cees waaye itam ñu ngi toog di saraan li nga xamante ni bu yàggee fii nii waxuma la Cees dañ ko doon tagee naan carrefour culturel waaye loolu jaakaar naa ni instant bi li fi des ci culture moom bu nekkee bu nekkul jeunes yi ne fi di yëngatu dee na fi ci mag yi autorités yi. ñu gën a xool rek parce que lii ren la déwén buñ fi nekkaatee ñoom nga leen di woo di leen yóbbul lettre boo xam te def na fa plus de trois mois ñu ne non lii raguñ ko wala nga ñëw di leen rencontré ñu lay téye seen óol tey ñun lañ ko def suba ñeneen lañ ko nar a def te loolu moo gën a doy waar. te dinañ gën a di jooy culture bi la tey suba dina nekk sport bi wala mu nekk la santé parce que tamit bu ko bàyyee bu ñu ko négliger ci domaine bi ci beneen domaine la nar a nekk donc nag jóg jot na nañ jóg xool bu baax ñiy teg ci yenn décision yi parce que am na solo koo xam te ni taxawul pour déglu population bi ne ci ginnaawam kooku yaakaar naa narul déglu kenn naru fa nekkal ku dul boppam te daa mel ni ñoom tamit seen bopp rek lañ fi nekkal. ah képp ku nga xamante ni peut-être lecture ak littérature képp ku nga xamante ni connaissance internationale ñu fa dañ def ay classe master nañ def ay atelier d'écriture def ay atelier déclamation atelier de mise en scène sànq Mandiaye dafa wax lu am solo mu ne lu tax les jeunes ne lisent plus parce que les jeunes ne n'écrivent plus loolu yi bindatuñ moo tax jeunes yi liiratuñu nit ñi li ñuy umpale mooy benn benn benn ku mel ni comme benn Jean-Paul Sartre wala benn Jean Jean de La Fontaine ñoom seen phase d'écriture seen instant de jeunesse la woon seen instant de jeunesse la woon c'est parce que les jeunes n'écrivent plus que les jeunes ne lisent plus nit bu jeunes yi bindee jeunes yi dañ ci mën a identifier wu ba dem di lire loolu la fexe de telle def ko telle sorte que ni l'écriture ak lecture doon affaire bu nga xamante ni day doon tendance yaakaar naa ni moo gën li nga xam ne phénomène yi gis jamono ji yëpp benn ojo audio 27 minutes ñëpp sëgg si di seetaan wala ñuy lire te loolu jëmalul kenn kanam léegi loolu moo fi xew buñ ko ko ne négliger yu bëri dina fi am nañ dem ñun ñëpp ñu gëstu parce que am na solo gëstukaay bàngoogu du 27 au premier des du 24 au premier décembre na ñëpp ñëw nu ñëw massivement on affaire faire suñu festival ensemble suñu festival bi nag man j'appelle les Thiessois autorités yi nag moom bu ñu mënee nañ ñëw bu ñu mënul tamit ñu xam ne tamit seen manquement la seen ñàkk liggéey la